ci dooley sëriñ tubaa ci barke yonent bi yàlla na ko ko yàlla defal di nuyu bu baax soxna Ayda bi nga xam ni tabaarakallaahu yàlla dogal na mooy jëwriñu jotaay bi ndax lu nekk day am yoon te sëriñ bi liggéey bi daf ko teg ci loxoom loolu itam ñun réeri ko xam nañ ko te it mu séq ko ak njabootam gi yépp muy njaboot gu jigéen gi di njaboot gu góor gi ñii toog di soxna Mboose soxna Aïcha ak soxna ajaa ñu bokk ak moom jotaay bi ñii di magam ñii di rakkam mu ànd ak ñoom ci liggéey bi ci ni ko ko cheikh bi tege ci loxoom mu di ko liggéey ba liggéey bi yegg si fii rafet nii mu mel mu mel ko suñu ñëwee dañ koy wax gàcce ngaalaama fii na wax jàmm ndax boroom kër gi ci jàmm la sose këram boroom kër gi ci jàmm la liggéey ba liggéey bi yegg si fii te ñii dañoo yàgg te dara masta damm dara masta yàqu programme la nag il faut mu am yoon wu ñu koy teg liggéey bi mën a dox loolu la cheikh bi def kon nag soxna Ayda ci yow la jaare nuyu ñépp ndokkeel la démb ci guddi deux heures du matin la oto bi gaare sama buntu kër ñu wàcce fa nag wu jar cinq cent mille six cent mille boole ci la mu war a àndal yépp nag ni ko cheikh bi daan waxee la ca war a ànd yépp na ca ànd te loolu du man rekk la ko defal mais Sénégal kilifa diine yu bari ci këru diine yu mag yi démb soxna ay doom yi teral na leen kenn umpalewul cant gi ci Sénégal ci kilifay diine yi te cheikh bi noonu la daan doxe innama al muminuuna ixwatun fa aslixu bayna axawaykum cheikh Béthio cant gu mu mas a def am na ca ndigalu Serigne Saliou waaye it daana ko wax ne ko na ko defe nii defe ko nii defe ko nii defe ko nii mu jaar ko ci noonu cant ya di dox Sénégal di bokk ci cant gi ndax cant gi du ñuy toog ci baas bi mais àdduna bi yépp war a bokk ci cant gi loolu moo tax cant gi jóg Sëriñ tubaa universel la moom moom ñépp ko bokk dafa am ñaari doof ñu ñu tuddee doof sax laa wax ñu daje ci benn photo bu mel nii kenn ki di xool photo bi ba yàgg mu ne kii daal fu ma ko romb day taxaw rek fu ma ko romb rek day taxaw kii ki ci des na ko kii bu toogee rek àdduna tukki <laughs> mu ne ko kii buy toog rek àdduna bi di tukki ñooñu duñu duñu di dof waaye ci lii taxawaay bu rafet moo sabab ñu di la ndokkeel rafetal nga yaatal nga liggéey nga parce que ku fi ñëw ñëwaat fi xam nga ne lii yokku na ku fi ñëw ñëwaat fi xam nga ne lii yaatu na xéewal yi bari na sañse yi rafet na dëkk bi am na stabilité presse bi ñëw na sécurité taxaw na kon gàcce ngaalaa ma soxna Aida bi ci des mooy ci suba teeru nañu waaye teral nañu nag manqué wu ñu dara alaaji ma dikke bajaan bële laa àndal ak mbokkam di sëriñ Cheikh waaye bi ñu xëyee ci suba ba nëgë fa ñu nekk teraanga bu ne soxna Ayda defal nañu ko fa ñun nag ku ñu teral lislaam bi ndax ci këru diine gu mag la jóge te liggéey bi du man sëriñ Touba la sama maam El Hadj Ahmad Baro njëgeen dem fekki Mbàkke Baari ba mu demee Mbàkke yi fekki ko fa maam Cerno Birahim moo ko dalal waxtu tàkkusaan moo ko dalal waxtu tàkkusaan wax ko ne ko sëriñ bi fatu na mbokk la bàyyi leen ko bàyyi leen ko bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen ko mu ñëw rek non non non non bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen ko mu ñëw bàyyi leen ko mu ñëw non non bu ñu def noonu bu ñu def noonu. waaw bàyyi leen ko. waaw bàyyi leen ko mu ñëw. bàyyi leen ko mu ñëw na ñëw ci man na ñëw waaw na ñëw na ñëw waaw bismillah bismillah bismillah waaw bismillah waaw ah, mbokk la mbokk la mbokk mbokk la waaw jërëjëf jërëjëf waaw waaw toogal toogal waa toogal waa toogal na baax na baax na waa baax na toogal. toogal yaa ngi yàq programme toogal. waaw waaw waaw. maa ngi koy maa ngi lay wër bëgg kaa mu tali. waaw waaw jërëjëf soxna maa war a sis bu xam naa ko baax. bébét bi mu defal ci yow. xam naa maa ngi mu tali loolu. waaw jërëjëf. njëgën man tey yal na yàlla guddal sa fan nit bu gëmee dara lépp lu koy dundal mooy nekk njariñam man de yàlla ma dimbali sama maam alaaji Ahmad Njëgéen moo may yónni ci Sëriñ Saaliw ma doxi ca aw yoon woo xam ni yóbbante la ma doon yónni ca moom bi may départ di dem booba six heures jot na ci ngoon bi ma joxee yóbbante ya ba noppi ma ne ko man de bëggoon naa nga dimbali ma ma defaraale booli beñe yóbbaaleel ko ko muy sama hadiya mu ne ma am nga ci ndigal loolu ak nëgë ni mat na vingt cinq ans vingt six ans média bi it wax na ko fu ne Ibrahima Ndiaye def na ci kaset Ibrahima Diagne Ibrahima sàmm def na ci kaset ma jóge Thiès dem Touba Serigne Saliou Sy moo ma dalal mook Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Mbacke moo leen bokk tudd moo leen yar moo leen tarbiya ñu nekkoon ci wetam yàlla dogal nag bi ma ñëwee Serigne Saliou si dalal ma ma wax ko ne ko dama yor ay yóbbante mu ci oto bi mu dalal ma ci néegam tuuti mu gidd na dem Serigne Saliou yàlla yàlla yokk leeram te taas nu ci barkeem ba mu yeggee tuuti mu dellu si aat ne ma sëriñ bi nee na nga yegg si ma ngi ñëw fekk ko ci njoowaan gi mu toog am na bang bangu yiir bu mag bu mu daan teg ci wetam daan ci teg xeru tiim wa xeru tiim wa ci la ko daan teg mu ngi ca teg benn torche bi ma ñëwee ma ñëw nuyoon teeg moom saafoon moom toog ci suuf mu ne ma ana góor gi ma ne ko ma nga ñu saafoonte mu ne ma man de mësumaa ñëw got te gisewuñu ma moom sama xarit la mu ni ma ma wax ko yóbbante yi yépp ba noppi ne ko nag dama laa fàgguloon benn bool yi beñe loolu nag sama hadiya la man mu ne ma anam ma ne ko mu nga nële mu wax ne nañ ko dugal ci oto bi ndax da koy yóbbu got got ñu dugal ko ca oto ba da koy yóbbu xel kom ñu dugal bool ba ca oto ba mu dem ma toog bu yàgg Moussa Niang mii moom la wax ne ko demal nga indi xéewal ci fële mu dem diri benn booli booli ba nekk couscous marocain ndax jamono boobu Serigne Saliou bés bu xëyaan taalibe yi dañuy togg ay añ indi ko ci kër gi dañuy togg reer indi ko ci kër gi bu ñëwee teg ko fa mu di ko berndee gan ñi ñëw ci booli yooyu la la ko wax ne ko na ci indi benn mu indi booli ba teg ko ci kanamam mu ne ko ubbi ko mu ubbi ko mu jël kuddu luus ci loxoom di tibb di ci sotti di tibb di ci sotti def ca ca war a ànd yépp wax ko ni ko indil ko raxasu mu dem indi raxasuma moom loxoom da ko caa capp nii rek ne ma bismillah ma raxasu mu ne ma bismillah ma ne ko tey am naa lu rëy lu rëy laa ma ne ko ndax yow yaay Serigne Touba yow yaay lislaam bi yay lépp yaakaar yépp ci yow mii la nekk ma ne ko kon nag su ma amee xéewal gu toll nii bokk ak yow ndab ma ne ko loolu ak cant gi mu ne ma fas ci li nga bëgg rek fas ci li nga bëgg ma ne ko man de dama ragal ragal naa dee dem safara mu waa ah, rus naa nag nit di ma xam di dee di dugg safara waaw fas ci fas ci li bëgg dal di jóg jël kaale ga waaxu dem ca kees ga mu demee nag tuuti mu génnaat ñëwaat toog ci ñëwaan gi ne xanaa kon ma yeewi la ma ne ko bismillah ah mu dal di jël jiba ji nag poos bi la ca nekkoon yépp mu yàkkal ma ko sama poos waaw ah, ndax sama xarit la woon nag yal na yàlla dolli leeram Sénégal ñàkk nañu waaye am nañu Serigne Saliou dem na waaye Serigne Saliou ngi nii toog mooy Cheikh Béthio Serigne Saliou ngi nii toog mooy jëmb ji toog ndax kii mooy Cheikh Béthio kon bu ngeen fi dajee ngir jëmmi Serigne Saliou jàpp naa ne ku fi jóge ku fi jóge prise bi dina branché ñépp seen aajo yépp faj waaye yow soxna Aida jërëjëfati